sama doole sama xam-xamu bëre sama jom ak sama fit laa ko Hey, ma mbokk yi maa ngi ki nga xamante ne moom mooy euh, booy Baol champion maa ngi si waaw maa ngi lay ziar yow sama euh, waa ji. naka naka naka naka waa ñu ngi si kawam rek. Euh. waaw xam nga doon ja andi toujours pare xam nga moo nu fi andi tey. ñu ko ñaanal yàlla mu am ndam ci dig ci digganteem ak booy bi muy bëreel yàlla na si am ndam xam nga moom leen andi tey xam nga pour bëgg mu am ndam quoi. doon ziar gaayam. alors nan nga ñëwee tey. waaw ñëw ànd samay mbokk rek. samay grand yem ma samay rakk yem ma sama waa dëkk su dul ñëpp yem ma moo war a ñëw def nanka nanka yóbbu victoire yoof incha allah. alors ñu gis nga mobiliser macha de indi supporter lan lan nga yëg tey. bilaa wala li des moo ëpp yàlla xam nañ carrément que maa damay sant yàlla bu baax xam nga parce que mënoon mënoon nañ ñëw xam nga mooy loolu ma gën a xam mais sant yàlla la ñu dañ may yokk jom rek bilaay. 100 hmm. pour cent géejuwaay bi donte ni saa yu ma la laajtee nga ne ma problème amul mais lu tax du ma la gis ci yi lu xew. waaw nag en général sëpp na day fekk ma jàpp mais mais ñoom xam nañ man xam naa ndax réerawuñ si dara ñoo ngi gisante ñoo ngi dëggante ñoo ngi waxante tamit ci groupe whatsapp bi surtout si whatsapp ak si lépp ñoo ngi nekk si groupe bi bañ fekkoon si groupe bi da ngaa non mais ku gis si biti nag da ngay yaakaar leneen la léegi dañoo mag ku nekk yore sa famille am lu ñu war bu ñu bëriwul dañuy nekk si leneen quoi. ñu ngi ak euh, Mbaye Gueye Junior champion maa ngi siyaar. waaw yàlla yàlla na muy ah, si ay tolof waaw di nuyu waale nag sama supporter yëpp di leen wax ne la damaa am si ruq yu ma nekkoon làmb dafa métti boo jugee si defet da ngaa war a toog xool defaruwaat bu baax a baax bala ngaa ñëwaat xaalis bi neex na trop waaye ndama ko dàq. xam nga mooy double moteur champion maay séen. delloo ziar lan mooy sa teewaay tey. waaw tey suñu doom nee na ñaan di Socé Mané numéro 2 di ko ñaanal yàlla may ko ndam moo waral suñu teewaay bi. noo leen ko waajalee. waaw waaj nañu ko comme ni ñu doon waajee yeneen combat rek di ko ñaanal yàlla may ko ndam. waaw bi rek. waaw génnoon naa mais ñëw naa bu yàgg mais maa ngi ci liggéey bi quoi. yaa ngi ci liggéey bi waaw euh, lay wax waxu combat wala. waaw gars yi ñu ngi may wax mais adversaire yi dañuy daw quoi. dañuy daw Pape Abdou Fall bëgg na sama na mbëru Dakar yëpp ku ñu jox jiw daw man maa na bay bëgg a dee ku ñu jox jiw daw xanaa gars yi liggéeyuñu dañoo ñu bëri bokk. dañoo ngeen bëri kan mooy sa cible yow jamono ji kan la ñu dox nañ ma nees dox nañ ma mbëri bëri ñu daw na ñëw ñu bëre wala boog ay xale dañuy liggéey na ñëw ñu bëre mu demee noonu combat yi animu waaw mais ñoo ñëw rek gars yi ñoo defagul teew rek boo bëree mu neex bu ma xeexee mu neex su ma bëree mu neex su ma xeexee mu neex amateur yëpp d'accord sëñ bi non non tiri sa laaj gars yi dañoo gars yi rek. mais sa dox nañ sa combat ak gars yi. am na ñu doon dox mais ñooñu xam nga dañoo ruux. comme problème bi mooy gars yi doon nañu wax sama diggante Gris 2 gars doon nañu wax sama diggante ah, Forza. mais yooy yëpp dafa mujj kii. mais yooyu yëpp méttiwul ci a neex. yooyu yoo gën neex. arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi ñu ngi leen nuyu mbokki Sénégal avertir ran ñaari siyaar na leen nuyu leen las car daaw da fall ikri Balla Gaye moo door yoos na mu ngi soog maanaam door di door door nañ ko mbot na car daaw da fall rëpp na soog maanaam rëpp nga jogaat nga daan nan la soog maanaam ak ki nga xamante ne moom mooy Malick Niang le grand champion champion maa ngi ziar. maa ngi lay dellu ziar ka moo waral sa teewaay tey. waaw ñëw seetaan si lamb rek en plus suma rakk caatu yof mooy bëre tey grand combat ñëw soutenir ko accompagner ko rek yàlla may ñu ndam bu sedd bi guy. yow nag foo nekk jamono ji gars yi ngay laajte rek. maa ngi sama gaale maa ngi yof. Ah. waaw entraînement yi ñëw toog dem géej naan ataaya ñëw toog. mais xanaa na moo tooyal sa <laughs> ku kuy bëre rek maa la gën a bëre. mais kon lan mooy problème bi fu mu toll nii. ah léeg-léeg adversaires yi ñooy puusante quoi. gars ñooy daw. adversaires ñooy xaw soof léeg-léeg <laughs> mais Forza maa ngi koy dégg mu lay taxal ay pot rek. non non du baax moom am na ko mu a bëral si si écurie Yoff quoi mais man. non du moog yow. du moog man rek. nii kan nga wax. man mbëri yi ma war a bëreel xam seen bopp koo fi laaj day yaakaar da nga pare ñëpp lay entraînement wala ñëpp laa pare. maa ngi lay a ah Koko mën nañoo xam teewaay bi. amateuru làmb bu mag laa. loolu mooy sama teewaay. Dofu Dias wala Baye Ndiassé ak Mbaye Khada. jëloon na sengoor bi léegi sànni ko ak nen ba mbay xadaa moo ëpp moo nekk jàmm gën mbaaw moo ëpp yaram de Baye Ndiasse mi ngi doon sens ne pii li waa Touba sori na jegante leen bëre Baye Demba mbay xadaa moo ëpp yaram indi na fi mbooloo mu bari door ko mbay xadaa door ko léegi Baye Ndiasse koy xool rek sengoor ya ay waay sengoor ba bu ko doorante Mbaye Khada Baye Ndiassé jël na tànk ba cirib cirib mboot ma mboot nan Mbaye Khada daan ko Mbaye Khada daan nan la mboot nan la daan la Mbaye Khada. ñu gis ni sa doomu nday tëgg événement bi. mais ñu gis la mu delloo la euh, njukkal bàyyi la combat bi lépp nga géré ko. non ñun on est des frères. Dieye production Abdoulahat du ay problème mu làmb ñun ñëpp ay responsable lañ di liggéey làmb non seulement. du suñu affaire mais nag yàlla moom ci nattoo ñu bëgg ko xale yi déggal ñu donc lu mel ni bu amee c'est pas la première fois dañuy sant sénégalais yi rek. mais la mooy secret bi saa yoo toggee fii day fees tey tamit pareil lan mooy secret bi. secret bi weesuwul ñun yore lu ñu benn mbër 100 francs mbër bu ñu lu ñu mën la ñuy def lu ñu mënul duñ ko def. moo nekk ca seex Cheikh Mbaba écurie bu mag ba. John Kara école de lutte Balla Gaye Mor Kang Kang John Kara Mor Kang Kang John Kara eh war na la ndomba daanu nga Mor Kang Kang daan na John Kara dëkkante ba maa lay bëgg naa la bëgg Bamba eh, waaw ni ma ñëwee mooy ni nga ma gisee rek di ñaan yàlla ndam incha allah waaw dina nga ko amel si ñaar yëpp lu mu bëgg rek ko jaajëf waay arbitre suuf la na toujours prêt olympique de Ngor amet 100 mètres ya ñu ngay xeex ñoom ñaar jàppante nan amet dama ngay dóor di dóor di dóor ba du ko dóor mu daanu daa kaa na daanu na daanu na daanu na moom toujours pare sang sumeeku na booy jolof la xam sa cosaan candum dooñ daga saar Thiandoum 2 Boy Djolof jàppante nañ plaqué na ko plaqué génn nañ plaqué na ko jël ba génn nañ ya door na ko jàppul na ko door na jëw remplacé ko Thiandoum Boy Djolof fu mujj rëpp na Thiandoum ak Boy Djolof rëpp na ko caxabal Boy Djolof Thiandoum Thiandoum Boy Djolof ko daanu nga Boy Jolof ay cag loxo bay drapeau de Maître Tailleur yàlla na yàlla defal jàmm promoteur bu la bàyyi ñoo ko yëg bu ko ci lamb ci dara ba nga amee yàgg na ma ne ko ba nga amee waaw sant yàlla rek sant yàlla dafa bokk ci carrière bi rek mënoon ma jël ko. waaw dara looy sóor ci moom. non am na jaa ngi noonu ñoo ko bàyyi. jaajëf jaajëf. première baa ngi noonu wala première sang Kër Masar mbooloo Jackson Junior Guédiawaye mbooloo ñaari mbooloo mbooloo mbërëm Pape Demba sang la doomu nday Pape Demba day xeex ak moom mbërëm Pape Demba mi oh buñ xeexee mu mer na tàng ba. fiir na ko jël na ko jël na ko jël na ko jël na sang daanu nga yee daan nañu borom Pape Demba ma Jackson daan na ko. nga am benn defet la am Papa Yade laa ko daan Thiatou benn defet la am Franc moom ko daan. pare na nga pare na suuf na Pape Thiam bi fi mujj vingt janvier la woon ci arène mu daan tigoo xartu yaay ja daan Jamso. caatu yoof bi mu fi mujj kàkku deux ak Boy Seye deux la fi daan kon ñaari mbëri ku ne da nekk ci dynamique de victoire waaye tey foog am ku daanu dun maxi dil Pape Thiam moo bàyyi ko écurie Papa Kane caatu yoof moo nekk écurie yoof yoof mbooloo mbëru hélas bu ama bi Pape Thiam mbëru Pape Demba hélas bu ama ak Pape Demba sama ñaari xarit yi maa ngi seet hélas bu ama waaye seetuma Pape Demba mbërum ma dafa daanu muy sang caatu yoof Pape Thiam ñu nga liwaatoo fausse garde ak garde normal Pape Thiam ma ngay demee gauche dem droite Thiatou Yoff moo takk lu weex li ci bopp bi tentu bopp bi xambe ngeen ko moom bàyyi ko Yoff dimanche 21 juillet 2019 door na day xeex ak moom Pape Thiam Thiatou Yoff rëbb na lan moo xew mbot ma yee dalay takk Thiatou Yoff Pape Thiam fu sori na Pape Thiam war na la ndooba daan na la Pape Thiam na Thiatou nee na ko jógal caatu yoof daanu nga Pape Thiam daan la jaaxle na yàggul am na ndam Pape Thiam la xale bi Pape Thiam am na ndam ngi sama yaay aw ma fayam ama koy ñaanal yàlla guddal fanam barki yonent bi maa ngi sant waa Géejawaay man wóor na ma ni caatu yoof caatu yoof moo ko jàppee laa mu ji naa lu ma daj